dañuy wax ne li kulli maqaamin maqaal ndax wax dañuy wax ne ñett la ñett ñett ko war a wax li ngay wax ni koy waxe ak fi nga koy waxe kon day mel ne jataay bi li may bëgg wax mën naa ne lu génn jataay bi la waaye nag itteel gum ma itteel ak ñor gum ñor ñëpp moo tax mënuma ko ñàkk wax ndax boo demee ci ibnu duraydin day wax ne lakinnaha nafhatu masdurin isa jaasalu xaamun min nawaahiha xama am na loo xam bu feesee sëb rek boo xëy génne doo ko tey ndax fan yi chaiaat yi dafa bari ci réew mi nit ñu bari di wax rawatina ki yëkkati kàddoom duma ko tudd ndax xas ab jullit duma ko def te dañuy wax ne nit bu la defee dañuy wax ne wa in isa kunta akram akramtal karima malaktahu wa in in kunta akramtal la ima tamarada kon am na suñ kilifa gu baax goo ko daa firee ne nit ku baax dis gor boo ko teralee moom ko ab kàccoor nag boo ko teralee mucc mucc ci ayam wala mu féttéeru dem waaye loolu amul solo Serigne Touba li ko suñu borom defal kenn mënu ko wàññi. du ci wax du ci jëf du la ndax ñi ëppoon kattan di Touba bi fu ne jéem nañ faa jaar ak moom fu ne jéem nañ faa jaar moom mënuñ ci dara jéem nañoo jub ak moom booba it lam wax mooy. fa in i'tazalukum fa lam yuqaatilukum wa alxaw ilaykum salaam waaye nag wa in janaxoo li salmi fajnah laha nag wa in lu ci ne moo ko kon Sëriñ Tuubaa loolu moo doon tawqi am mooy bu ngeen defee la ngeen defoon ñu defaat dañ defoon kon noonu ko Serigne mu Ka waxee ci biir mbind bi rek mooy la leen Serigne Touba léebu bañ demee boo ko delloosi ndax boo seetloo ci biir xasida yi nga xam ne euh, ci bahriyaat yi la dangay ngay dégg buy buy ñaan suñ borom delloosi ko Sénégal bi laa tasabbubin min nii lay wax taw bañ ko saw kon Serigne Touba defu fa genn loo xam ne ak ñàkk fayda la mm-hmm. def fa dara ko mën a jame def dara loo xam ne tubaab mën nañ ko nett li ginnaaw ndax lépp ñoom bind nañ ko muy lu leer nañ bind yëpp yéem sëñ Tuubaa ci jom ji ak fulla ji ak fit ak dëgër gi la ñuy def mm-hmm. kon kooka tuuti na ci nit koo xam ne dafa toog fee waxtu ne muy xool li gën a ñaaw di ko teg ci dëru sëñ Tuubaa mm-hmm. te muy loo xam ne nit ñi mën nañ ko saafaraa seen seen bopp ci benn bi soo la ñaari fan waaye nag jàmm bu amee cim réew day am lu koy sàmm. Mhm. ndax pas-pas bu toll noonu pas-pas yu toll noonu sax laay wax. Mhm. ndax yëmmaloo ko Sëriñ Tuubaa mhm. kenn du ko fooyee. ndax bu nit ñi jugee saafaral ko seen bopp. lu ne mën na caa juddoo. te loolu baaxu cim réew. kon moom itam na maandu. buy waxati na wax ci lam xam. na wax ci lam gëm te bàyyi ñi nga xam ne yoonam néew ci ñoom mu maandu ci ñoom. liñ mujj wax ci Serigne Touba nag ba àgg ci di wax ne tubaab yi xamul nu ñu ko nettalee sax ndax man diggu ma ko aw ma jotul di ko diglu waaye liñ ma nettali ca nam ko waxee bëgguma jaar ci baat yi di ci jum waaye nam ko waxee demeewul noonu Serigne Touba dégg ngeen Cheikh Abdoul Ahad la mu wax ju leer nañ la ci koor gi mu fi mujj fekk Saxbaan tàggooguma Ramadan nuyooguma koo xam ne Saxbaan Ramadan ñoo lay ñoo nuyu nag ku àgg foofa sa digg sa borom eh, tuuti ci mbindeef di la wax rawatina ab tubaab te tubaab yi Serigne Touba xam ngeen ne mosu leen a nongul dara ci ci bañ ko bëggee takkal médaille dafa gàntu bañ ko bëggee dem dem ba ci mujj gi ñu àgg ci ne dem nañ ba xam ne liñ jortoon ci ak liñ amoon liñ liñ bëggoon amut ndax gis nañ ne mboolem ñiy woote lu baax rawat na suufiyanke yi dañ dañuy dëddu àddina ne ci àll bi di lekk eh, ay xobi garab wala ñuy dëddu loolu bu amee àdduna kenn du ko dundal yow nag gis nañ ne lislaam ji ngay woote ñépp danañ jub ñëpp danañ tegu ci yoon kenn du tooñ te nit ñi itam adduna si dana defar ndax nit ñi danañ liggéey kon nag dañ laa bëggoon a jiital ci liñ daa tudd AOF li nga xam ne France moo ko yilifoon nga jiital islam bi yëpp bañ ko waxee sëriñ bi sëriñ bi laaj leen ba xam lu ci seen xalaat ñooñu mag rafet lu ko ne ah, loolu de xanaa mbégte la ndax eh, ñoom de ndegam ñoo jortoon ci yow daal dem ba wëlbatikuwaat wax ne dañ laa bëgg a jiital loolu dana am solo ndax eh, ñoom buñ xasee ba jiital la dañ ci forcé ñëpp Sëriñ Tuubaa nee loolu nag laay bañ ndax yéen ñi ànd ak man de lu ma leen digal ngeen def ko lu ma leen tere ngeen bàyyi ko xam nga loolu lu ko waral da ngeen ànd ak man ngir yàlla ci seen coobare ñoom nag lañ bëgg bu amee. ku ci ànd ak may du doon sa du doon seen coobare mm-hmm, mm-hmm. force lay doon mm-hmm. te laa ikraha fi diini daan te innil kaafiruuna illaa fi xurur nee na ñi wedd yàlla luñ la wax rek ay wor lañ ca nar kon Sëriñ Tuubaa mbiram wees na loolu kon kuy wax na wax ca la nga gëm wax ca dam xam koo xam ne gëmoo tasawuf nga yem ca la nga gëm ndax ñun amuñ jotug di tontonte loolu nit day nekk ci lam nekk gëm lam gëm te xam ne loolu jëm nañ ko ay ay ay fukki at ay fukki fukki fukki at saa suñ xëyee luñ gën a wax ci Sëñ Tuubaa lu ñaaw nit ñi seen positif di gën a wér ci Sëñ Tuubaa seenu dogg ci Sëñ Tuubaa di gën a dëggu seen seenu eh, jaayante ci Sëñ Tuubaa di gën a dëggu kon loolu jëru sa xalaat ku am jot sax mooy nekk ci den digloo ka jéem a xool ca eh, la ñuy wax ndax loolu amul solo man man de bu ma ñëpp toppoon ñëpp day noppalu ndax du ma ko dégg du ma ko diglu te kenn du ko wax lu ma ci déggee ci jotaay laa ko digg te bu mu amee sa bu ma àndee sama sama sama coobari du ma ko digg loolu kon na ci ko ñëpp xamee noonu am murid nag day am fulla wormaal ñam ñam bokkul xalaat te ne ci Sëriñ Tuubaa ci eh, mel na Cheikh Abdoul Ahad wax Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon woon na am murid day mel ne ëkk te mel ne xobu garab nee xobu garab ngelaw lu jug yóbbaale ko waaye xob ngelaw la ko duggee ca pax ma rek génn waat ko ca ñun foofu lañ nekk Sëriñ Tuubaa rek lañ dégmal xoolu ñeneen te xam nañ ne itam li fi suñu pësteef mu ngi wér suñu digg ak Sëriñ Tuubaa suñu digg ak Sëriñ di di di sell muy dëgg muy lu dëggru ci ñun lépp luñ yuutu danañ ko jot lépp luñ lu luñ dëgmal danañ ko daal ndax lu ci liñ wees lépp dund nañ ko ci te Sëriñ Tuubaa wane na ko te Sëriñ Tuubaa mbiram saa su xëyee day gën a jag di gën a baax di gën a defaru loolu nag mbirum suñu borom la ndax yuridun an yutfiu noorallahi bi afwahim loolu wa yaaballaahu ak uh, wallaahu mutimmu nooruhu walaw kariha alkaafiruun kon neexule waaye mënuñ ci dara saa suñ xëyee di gën a jéem a naxal mbirum suñ Tuubaa dañuy mel na kuy kuy suur kuy suur ker loo gën a jal mu gën a yëkkati ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa